te nag ñu ñëwoon fii kër sëñ Modou Mbacke Habib di xalifa sëñ Abdoulahi Mbacke moom Seexul Xadim ñëw doon ko ziyaare doon ko ndokkeel si waaye doon ko leeral tamit liggéey boo xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa la ci Gabon ca barabu naan Mayomba ñu ñëwoon ci moom doon ko leeral rek liggéey bi nga xam ne moom la waa karawaan Mayomba di liggéeyal Sëriñ Tuubaa foofu ca Gabon muy liggéey ñaari projet yoo xam ne mooy siyaare Mayomba fa Sëriñ Tuubaa Cheikh Khadim nekkoon doon liggéeyal boroomam ci ay at yu bari ba nga xam ne mbooleem euh, lii ñuy xéwal gi ñu am lépp mën naa ne liggéey ba fa la sosoo fa la ko doon liggéeyee euh, Sëriñ Fàllilu Buso àndoon ak mbokk taalib yi nga xam ne ñoo nekk foofu ci Gabon doon liggéeyal Serigne Touba ñu sëñ bi amoon ay niser ak ay yéene yu mag ca barab boobu nga xam ne fa la sëriñ bi sampoon bantam ya ñu koy sempi di ko sànni di ko xatal muy barab boo xam ne barab bu yéeme la bu doy ñu fas fay yéene amal incha allah rabbi jumaa ju réy joo xam ne dana méngoo ak sëriñ bi waaye loolu sëñ bi nisaroon ak këru maam jaara ak daaray yi Seexul Xadim joo xam ne mbooleem ña fa nekk di ay gabone dañ mën a xam sëriñ bi mën a xam seen diine mu liggéey boo xam ne liggéey bu yaatu la bi yàlla doole nag suñ boroom def mu wuji boroomam ñu ànd kook ak mbooleem ñi mu àndaloon rek liggéey bi ñu fas yéene loola mu jëm kanam gën a yaatu gën a law ba ñu dem ci sëñ mu Mountakha hafisalla yàlla na ko yàlla wattu te sàmm ko te barkeel ko mu joxe ci ndigal lu loo xam ne chaque année ñu ngi koy def ci doomam sëñ maam Thierno Mbacke ak sëñ Xaadim ñu ànd ak ñoom waxtu nekk di teew foofa di amal liggéey bi liggéey bi nag ñu bëgg mu gën a yaatu gën a gën a àgg foo xam ne mbooleem waaye mën a nekk ci àdduna bi danga ko mën a xam waaye tamit xam naka ngay mën a demee moo tax euh, sëriñ bi wutoon benn ONG boo xam ne mooy porte caravane bi mboolem ku bëgg dem ba ci turu ONG boobu ci ngay mën a jaare dugg biir Gabon def mbooleem say ziar ba dellusiwaat Sénégal wala réew mu mu jóge woon te doo am benn jafe-jafe. loolu nag lañ bëgg mbooleem murid yi fu waaye mën nekk xame ne am na jumtukaay yu yomb yoo xam ne dana mën a nit ki dana mën a dem ziara ji wàññi ko waat te du am benn jafe-jafe liggéey boobu nag wutal nañu ko ay kayit ba kayit yi lépp mat na ba état Gabon bi nangul ko euh, sëriñ bi récépissé bi génn muy loo xam ne amul benn jafe-jafe ci ku bëgg dem incha allah rabbi loolu nag lañ ñëwoon doon ko leeral sañ bi di ci sàkku ci moom ak ñaan ak kàddu yi soññee yoo xam ne dana gën a mën a jotali ci mboolem taalibe yëpp ñu mën koo xame noonu mën koo waaje noonu loolu moo doon euh, tànk yi xam naa li des ci ay kàddu yu leeral incha allah rabbi suñ kalaam wala suñ bàddu ñoom dañ ci ñëw gën a expliquer euh, ko képp koo xam ne bëgg nga caa dem incha allah rabbi dana am aw yoon woo xam ne danga ca mën a jaar am ci ay ay maalumaat yoo xam ne dana la doy sëkk pour nga mën a xam nooy def ba mën a ñëw incha allah rabbi pour tënk rek gàttal dañuy jox sëriñ bi mu mu indi kàddu yi soññee ak kàddu yi. asalaamaaleykum euh, wa wa barakaatu. maa ngi ziar mbokk yi sëñ Bousso Bey sëñ mbokk yëpp rek mbokk yi Gabon yi daanaka tooñ bu ñu naan. jataay la boo xam ne macha allah jataay bu am solo la ndax yu mel ni daanaka dañuy wax ne la sëñ bi dajoon ca Maayomba moom la saa boroom di faye sëñ Tuubaa mu baax mi mas naa wax ne ci jafe-jafe yi mu amul Gabon bokk na ci mooy bi ci gën a siiw te moom gën cee siiw gën cee siiw dëgg-dëgg bim naan mas na faa woore goo xam ne dafa la waaye yaa xayra dayfin waaye fa yaasal bushaaraati mu ne diggante ñaari yaay yi mosu fi lu cin togg kon na yaa xam ne coono la fa daj coono bu méttee méttee méttee macha allah nga xam ne nee na saa su dog jotee day gén day watt xobu garab sax ko tucc tuccal ko ci ay ay bëñam muucu ndox ma buusu gàncax ga mu coono la fa dajoon moo tax ci turu sëriñ bi sëriñ Modou Habib jox jox ndigal sëriñ Abdoulahi mi man moo di taawam ak man mu xeebu mi jot li kàddu yi man ginnaaw bi ngeen ko gisee ba noppi kàddu cant bu baax a baax nag ndax yu mel nii it daanaka da ci baax ñoom ñu ñu leen ci ñu leen koy yëgal ñoom ñu ci soññee di ci mën a liggéeyal sëriñ bi kon coono yi sëriñ bi dajoon ca maa yomba googee moom la am ay murit yu jóg ngir bëgg ko fajal bànneex dañu wax ne ginnaaw ba alxuraan waxee ne fa inna ma al usri yusran inna ma al gannaaw jafe-jafe bu ne ab yomb yomb lay doon kon sëñ bi la la fa waroon naqar lépp sëñ bi da koo dund foofa murit di am pas-pasu nag taxawal ko fa la mu bëggoon dañu wax ne sëñ bi boobu daraan def amutoon jumaa amutoon jàkka amutoon ab jullikaay waaye fexewoon na ci ay pexey boppam ba sampoon fa ay bantam yoo xam da doon xàmme ab xàmmekaay la ci jàkk di fa jullee saa su ko sampee ñu pom ñu sempi ko wax nañu ne sax ci la ko saa borom xamale na ko danañ la fay ñaari jumaa mel ni bi njaareem benn bi tubaa bu njaareem bi nag mu fekke na ko waaye bu tubaa bi la fekke wut kon day mel ne bii ma mënees na ko cee boolewaat kon daal ci kàddu sëñ bi jaar ko sëñ Abdoulahi mi moo ngi sant bu baax a baax ci jéego yi ngeen fi ñëwee di soññi nag di gën a góorgóorlu bu baax a baax ci liggéey bu mel noonu ndax Sëñ Tuubaa li ñu koy mën a liggéeyale ci kaw suuf amul lu ci génn jàng ak jàngale moo tax mbooloo mi jóg ñëw am yéene yi nag ginnaaw bi ñu ko jógee ci Sëñ Muntaxa ginnaaw bi ñu jaaree Sëñ Muntaxa ñoom te loolu lañ wax sëñ biit mu baarakaal ko mooy bi bi mu baarakatihi xafidahullah sëñ biit ànd ak moom ci loolu ànd ak yéen ci loolu it di soññ mboolem murit di rek di wax ne liggéey Sëñ Tuubaa la ndax Sëñ Tuubaa kenn mënu koo liggéey lu weesu ñaar wala ñett muy fu ñuy jaamoo yàlla ak fu ñuy jàngalee diine yàlla ji fu ñuy jàngee xasita yi xasidaam yi nga xam ne yonente bi yàlla bi la ko tagg ñett yooyu dong la moo tax te boo xoolee xasida yëpp yëpp yëpp lépp loolu la gay mooy asik ak asik tudd yàlla sant yàlla eh, amul leneen ak tagg yonente bi sallallahu kon ci kàddu sëñ bi sëñ baa ngi sant bu baax di leen di soññ mboolem euh, murid yi nag nga xam ne moo leen yilif wala moom lañ doxale digganteem ak sëñ Tuubaa mu ci ñaari yëf yi li ci njëkk mooy ni ko sëñ sëñ Cheikh naa waxe ci caravane bi mu di jëmmal jeexitali sëñ Tuubaa di ko xeeñtu ndax lu am solo la ci bépp wàlliyu bi yàlla fu mu mas a jaar nit ñi dañuy xeeñcu ay jeexitam kon sëñ Tuubaa day nituk yàlla koo xam ne léppam njariñ la kon fépp fu jaar dañ faa war a xeeñcu loolu mooy bu njëkk bi ñaareel bi it ndaa bokk ci nituk yàlla it fépp fu jaar dafay def ab jaamukaayu yàlla ba sëñ bi jëmaloon na ko bañ sampi bant yooyee jaamukaay yàlla boobeen la ay murit yu jóg donte seen doole matewu ko waaye xam nañ ne sëñ Tuubaa yàlla may na ko lépp te xañu ko dara ñu bëgg ko faa jëmale loolee kon yàlla ko saa borom jàppandal ca defal leen tawféex bu baax a baax a baax ba ngeen mën koo mottali te motti mata ci yéen it te yàlla defit niñ ko waxee rek mu doon wërsëgu sëñ Muntaxa it mu mën koo tàmmuli àggale ko ci barkeb sëriñ bi te yàlla may bépp mu bu fa bëgg a siyaara ji mu dem siyaara ji ko nag jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu وسالكنا للخل لي برما ينبغي